为什么呀？耶！ma ne jëleen seeni am amoon te booleeg seeni yéene dimbal leen day baay am na doole ci doom. waaye nag bii yow ngelaw nga. ah ni may def dinaa san. te yow fattawaay. ay kii man daan gis nga nag ñu ngi tooñ caporal waaye. suñ chef bu mag bi bon de. tam ñaar ñëpp ah. lu lu ku ndaw ki def ca mag ku mag ki la ko gis. waaw da lu ndaw yi kay lu ma def ci nagu mag wi la ko xamee. Darfour ja xaalis bi bëree ci na. ah. parce que bu ñu demee ñëw. waaw ba sowee am mille cent kenn ku ne am këram gu mag. eh. kon Darfour gii dara la kat. waaye leen man xalaatoon naa ko ñun buñ bëggee mucc xam nga yow mënoo yanu laas man bu ma yoree météo boo ma tuddee naa ànd ak moom ni jànjang léegi lan laa xalaatoon mooy xam nga Wolof Njaay dañuy daw barew raw ci ngóor la bokk ngeer gu nu gis nan nan ni meng ci biir. man salaan gu nu gis nan ni meng ci biir. man du ma ko def. a ah, looy de man bu may lekk alal day alal ji day leew dama koy liggéey dama koy raak man der bu daggee damay xeex damay raak bay ah, naaw laa la wax raak may naaw raak. per njariñ loo fekkee de. man njariñ loo fekkee man a raak de attention de. ah damay naas roket ak ay baliyeeg ay. bazoka yeeg char de combat yeeg ay musique yi ni waaw man faale ma yee de loo faale xoolal man mën naa jaas jaas ko jaas jaas mën naa ko naa wadd de <laughs> ay bu waddee waa ji bal bi porté ara teg birik teg birik xanaa xamoo loo teg teg birik balu bu ñëpp yi birik boo yor di ko di ko day <laughs> daw daw nu jaan rek ah. waaye nag bal bi man ngaa sig sag bal ba tombek ca sig sag ga net ci sa dënn bu ne ca pëng moom ilaa <laughs> dañ ciy génn. kooku kay sa xol seen. non Darfour moom ay xeex ak ay yi. yow mën naa lay protéger des fois. waay yow nga gilet pare-balle jox la lu. non joxagun ma gilet mais man am naa ndomba quoi. am naa ndomba goo xam ne anti bal la buñ la dóoree fukki bal du tàkk. am na ndomba yoo xam ne dañuy soob rek de ndomba yooyu benn baaxut. bu ma bal bëtee ah lu adduna bi raxasoon maa ko naan damaa woor di. lu ma xëy ci wax loo xam ne si n'existe pas. surtout ak weeru koor. ah waaw. caporal bi chef. noo def sa gars yi ak entraînement yi. ah sama gars yi dañuy ngi fi rek. waaw mbaa yaa ngi leen di dërëj bu ah, baax. ah xam nga ne du yomb. Mhm, parce que Darfour lañ jëm. ah ok yaa ko wax Darfour lañ jëm. kon affaire dafa war a metti warul sedd. mais kay moom xam naa li ci des bu ñu ñëwee ñu jox leen séquence yu dëgër. waaw balaa ndogoo jot. bu mu sedd. non ñoom moom vraiment vraiment pour l'instant ni ñoom ñu ngi góorgóorlu mais ba ñu doog a ñëw moom kenn xamul loolu lañ ay xusma ñàpp lañ. d'abord ah waaw yu mag a mag. mais ça se passe bien maintenant. oui ça va petit peu rek. ah ok dalu mais bu yéen fan ngeen nekkoon ba léegi. te xam nga bi ñëwoo kii ba lal bi doyee tëdd léegi lal bi benn côté bi weñi dañoo daggut léegi après bi weñi demee xam nga weñi moom lalam réseau li bariwul. léegi après moom traversé bi côté noonu weñ yi bañ demee léegi pajaat day rës ci suuf léegi après fekk man sama lal amoon na ay réserve ay weñ ma mujj yëkkat sama lal dindi ay weñ yu nekkoon foofu léegi après moom doon ko ko lonkal ci ko six weñ six ma lonkal ko ko après léegi taawi ci ci la pajaas bi mu bëbax bi mu bëbaxaatee mu yëkkati waat ne waat ma lekkaat waaw mais après bi mu demee ba jàpp ba jàpp ci laa ko bàyyi noonu après du waay doon defaraat di def pajaasam après kii bi képp ko rësool. rësool bi képp ma sama tànk baa ngi nii sax da koo képp ba ci kanam la ko jame da koo jame ci kanam ba ah. weñ bi génnee ci kanam. fëllul le fëllul daf maa képp nii rek. ci tànk bi jamul la ma fëll ci kanam eh, jamul jamul daa daa képp nii bi néew bi ko léegi après bi mu ko képpee. li ma xëcc ndekete. mi ngi gën di seere. ëpp na. yaa ngay xoj de. bay na. waaye yow du seebar du laaj. waaw ok comme que noonu la demee. waaw léegi nag damaa bëggoon nit ñaar kenn ku ci nekk nga defal ma. sans appui avant. sans appui avant. damaa tànk bi dama newi. damaa ne damaa neewoo. su ngeen paree. waaw ci la def cinquante cordes. yëpp man leen ma leen sant un point. ba ba ni ndogu nag. dañoo woor di. woor di corde. pusu leen ne. korka moom man daal wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla nag ku ko waxoon it wax dëgg yàlla fam ko lay bëgg a métti nag waay na naa salit waay. waaw calme-toi yaa ngi may gaañ. waaw calme-toi. acca ah, ah, ah. on commence nii. moom wax na appui avant ba pare. appui avant kayit. pompe bu ngeen pare ngeen appui avant bu ngeen pare ngeen kor ngeen pare nag. ah doon loolu yow kay xanaa kon kay yaa pompe. waaw yaa pii avant. après kóord kóord kay nañ ci boole après ñu suuli leen. ah moo ca topp de te dëgg-dëgg. Aja. Mhm. maa ngi pompe maa pompe. na wàcc. ah sama tubay jee sama tubay jee lonku jee lonku C'est bon. Allez. Plus vite. Birgadier dënn bi na wàcc. dënn baax wàcc. na wàcc. jóg. jóg. jóg. jóg. problème boobu la ah ja ka jafe saa moom ka jafe saa moom ka jafe. yéen da ngeen maa yëpp wala lan. ah. eh eh eh eh. xam nga leen la. rey leen ñu léegi ñu dee. xalaat nga leen yow pour liggéey. léegi rey nañu dee méttiitu ko rey nañu. yaa ko opté ah. sa wàll nga soxla. rey nañu dee léegi. tëj leen. 30 secondes laa leen may. yaa ko def 30 minutes. waaw ok 30 minutes baax na. waaw. acca. jël leen bu 30 minutes jotee nag liggéey amul accu. ah dañuy continuer rek. moo néeg bi a néeg. ñun eh, waaw. temps bi lan lañ. amatul de. nañ ci waaw balaa 13 minutes yee daanu. nañ ci ndogu ñu ndogu. amoon nga mayoon. eh. lee. yor. man da koy mosal ci sa ma mosal ci sama invasion muy l'été. l'été. mayor l'été. merci beaucoup pour le geste et la bannière bii pour man bii sama chef. ba mu jox waaw te fi teen. déggoo leen. jëlee teen merci beaucoup pour le geste et la bannière. doo jël teen bi ba fi leen. kii lekk riba tax mu wow di doom yaram mu. doom yaram xanaa gisoo ku mel ne kiir daani yéen ñi dafa ñaaw ah. papa papa léegi nu def.